سيدنا وحبيبنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu summa amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa kay balaa may tàmbale waxtaan damay ñaan rekk njëkk ak teraanga ñu déglu ndax nit ki lu lay yëkkati daw ay kilomètres ay waxtu bàyyi sa yite yépp yaakaar naa boo fa demee war ngaa jël astuut li ngay yóbbu kon dama bëgg ñu dégluwante waxtaan bi mën a neex bés yi tey nag dañ ko jéggal di ko def mooy mawludun nabawiya mooy ab juddu sayduna muhammad sallallahu alayhi am na ñoo xam ne ñu ne ab bidaa la daa baaxut ñun bokkuñ ci ñu groupe boobu ñun dañ ko gis ni ab bidaa bu xasan la mooy bidaa bu baax la ndax suñuy maam yi jëluñu ay ngannaay di rey walla xeex modèle gii la jël mun a dugal nit ñi ci lislaam kon bu yeboo ñu bàyyi ko xel xam ni diine jamono ju ñu toll nii daa jaxase lool jaxase lool gune gi toll ni man mag bu dund dundam yépp def ko ci sunna ak ci alquran ak ragal yàlla ku toll ni man ma ñëw de naan magu ñooñu di leen weddi bokkuma ci groupe boobu bu yeboo dama kaa ubbi pour entre parenthèse ñu xam ko xëy na buñ fi jógee ñeneen yi naan li ñuy def ni ab bidaa la ñun de gisuñu ko ab bidaa la donte bidaa mooy loo xamante ni yonent gi def ko waaye gi daa bu baax yonent bi lu mu deful daa bari ak bëri waaye nag bala ñuy gàmmoo di dugg ci gàmmo gi dañ ma sas ma waxtaan ak nit ñi dañu ne ñu tàmbalee waxtaan mooy lu alquran gi wax rekk fa zakkir in nafaati zikra fu ñu koy tàmbalee di wax tey mooy ak thème buñ ñu jox pour ñu wax ko mooy diggante nit ak nit walla diggante mbokk ak mbokk walla diggante ak mbokkam jullit walla nit ak nit lépp xaj na ca kon bala ñuy gàmmu loolu lañuy njëkk a waxtaanee mooy diggante yi dañuy tàmbali rekk naan yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa ne wa atasmu bi hablillahi jamian wala tafarraku loolu la yàlla wax bokk buum yàlla te bu leen tàkkale ko mukk te it yàlla googu mooy xol benn mooy maanaam ñu nekk benn mu ne innama almuminuuna iqwa jullit ak jullit ay mbokk lañ moo tax annikaau jawharatun raqiqatun in lam taarusuha kaanat muarradatun lil afaat gis nga mbokk ab jamaa la mbokk ab urus la mbokk ab or la buñ ko sàmmul rekk ci yàqute lay jëm daa foor lool nit ñi dañ koy xeb waaye kenn waru koo xeb ndax àdduna gii nit ki jàpp kër mooy àddunam moo ñàkk adduniya daara man laa daara àdduna gi ngay gis nii kuy nar a ñàkk yowmal qiyaama moo koy jàpp muy këram àdduna gii ndax bu suñu borom di ne alquran ne yaa ayuha allazina amanu ittaqu llaha hakka tukaati wala tamuutunna illa wa antum muslimun ittaqullah googu mooy lan mooy ragal yàlla ragal yàlla googu nag mooy lan ma hiya alkawfu min jalil wala amal bi tanzil wal isti'daadu lirrahil fa man faala zalika fa kad ittaka llaahu hakka tukaatihi al amalu bi tanzil mooy di jëf lu ñu yàlla wàccee mooy alquranul karimu al amalu bi tanzil alxawfu min jalil mooy ragal yàlla miy bind wal isti'daadu lirrahil min hazihi dunia ila daaral axira mooy préparel waajal sa bopp xam ne dangay jóg ci àddina gii te dem wuyu ba borom xam nga ragal yàlla daa nekk ci aw làmmiñ waaye nit ñi dundutuñu ko mënuma gëm ne nit ku ragal yàlla di jëw nit ku ragal yàlla di dog di di dem di di di di di doon naafek nit ku ragal yàlla di faatu waxtu nit bu ragal yàlla lu yàlla digle doo ci def dara nga naan yow danga ragal yàlla yaa ñeme yàlla kay nga war a wax kon nga war a xam ne àddina gii dañ koy waajal xam ne bés dina ñëw ñéppay dem bëgg yenent bi du càggan ne buñ ne yenent bi rek nga ne sallallahu alayhi wa sallam déedéet sallallahu alayhi wa xam naa ne dafa bëgg ma gàmmo ji waaye bunt bi laa bëgg a tëj dinaa ci ñëw dinañ gàmmoo tey <laughs> daa bëgg ma gàmmoo moom mooy laajte ayna wulida muhammadin muhammad rasulullahi wulida fi makka fi sahri rabiil awal min amad fiil kamsata wa isruna sana miladiyan hijratahu min makka ila almadina ma yuwafiqu sana muhammadu rasulullahi wulida alyatima aba wa fakkat ummuhu fi sinnin mubakaratin fatarabba gàmmaguma xaaral xaaral boo ma bàyyee tuuti rek ñu guddug a gàmm ma tëj bii rek dina baax am de <laughs> ah xam naa ne dingeen ngeen d'accord ak man ñu tëj bunt bi ñu doog a gàmmo ndax dama bëgg diggante yi rafet ba pare yonent yàlla Muhammad bu mu ñëw mbokk la njëkk defar jikko bu istu li utammima maxaarimal axlaaq jikko lañ war a njëkk a defar ba noppi ñu dooge nitee fa saa tubsiru wa yubsiru mm-hmm. Mm-hmm. yent yàlla Muhammad bi mu ñëwee yàlla da ko tàgg ci jikko mooy wa innaka la ala xulqil azimin bu jikko yëpp dajee yonent bi sa jikko moo féetoo kaw moom mooy borom jikko kon war nañ defaraat jikko yi xool bu baax bu dee yonenteeg suñu royukaay ndax yonent bi dafa ne laa yuminu ahadukum hatta kenn gëmam du wer il faut ngeen bëggante mun munoo gëm gëm bu wér nag te bëggoo sa morom jullit munta ne te laa taddikulul janna xatta tu'minu wala tu'minu xatta tahaabu duñ dugg àjjana mukk il faut ñu gëm yàlla te gëm yàlla munta wér bëggantewuñu kon jikko lañu war a defaraat bu baax moo tax mu ne laa tukaati u wala tabaadu wala tadaabaru wala tahaasadu wa xuunu ibadallah ixwaana loolu la yonent bi jàngale bu leen noonoo bu leen bañante bu kenn dem toogee moroomam di ko yàq te bu leen takkale ko mukk bokk leen te nekk wuy jaamukati yàlla yi nekk benn waaye lenn rek moo jaa moo ma jaaxal ci suñuy jamono jii lenn rekk dama naqaree filmer nag oh, waaw waaw <laughs> lenn rek moo ma jaaxal ci jamono yii baax na mooy jullit yi dañoo bëggantewul jullit yi kenn ñaanul sa moroom jàmm te masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'attufihim wa tarattufihim masalul jasadil wahid masalul jasadi misaal jullit yi dafa mel ni ab jëmmu nit benn rekk bu ci méttee rek yeneen cër yi yëg ko nit bu sa buñ bi di méttee rek dootoo nelaw sa tànk buy mette yeneen cër yi dañ koy dimbali lu tax ñun kenn am problème nga toog kontaan sa moroom jullit am problème nga toog kontaan ñaw sama àq moo ko dal xam nga li ma zaari nit ñi yooyu man lu ma lu ma leen di tiye oustaz mooy ki xelam dem ki xelam dem nit am naqari nga kontaan xamal ne yàlla mii ko teg mun na la koo teg lu tax doo leen bokk ak moom naqar mais déedéet ñun suñu jamono dañuy toog rek ku am problème ñu kontaan sama ak moo ko dal fi ma nekk mooy misaalu jullit ñi ni ñu war a mel dañu war a mel ni benn jëmm ab benn jëmm lañu war a nekk bu am problème benn bu am problème rek ñëpp a ko war a yëg benn nit bu bëñamee métti du nelaw bët bët nelaw lu mu neex neex neex ne bët day gantu ne te duma nelaw damay dimbali sama mbokk mi seddale ak moom ab naqar bu mu nekk nii ñun ku am problème ñu kontaan nit day am jàmm sa morom yi yéene la jàmm jooju mu bañ a taxaw ci sa loxo mu yàqu yàllaay maye jullit yi suñuy problème mooy gëmutuñu ndogal yàlla gëmutuñu ndogal yàlla lu yàlla wax rekk ñun ñu ne déet mënta nekk wax naa leen ko dema ne muñ ab ñetti ponk la mooy bu njëkk a sabrun ala taatillah muñ ci kaw jaamu yàlla ñaareel bi mooy sabrun an maharim allah muñ lu la yàlla araamal nga bàyyi ko am na ñoo xamante ne boo leen ne sàngara mbaam lii baaxul ñu ne lu tax yàlla tere ko ab julit piir loo koy laajte lu tax ñu tere la ko bu yàlla ne bàyyi lii rek bàyyi ko moo gën ci yow moo la bind ñetteel bi mooy a asabrun an aqdaarillahi taala te muñ dogal yàlla yàlla bu mayee sa moroom nangukul ko ko yàlla bu la tegee naqar nangu ne ni yàlla moo ma ko teg ñaanal ko mu teggil la léegi ñun suñuy problème nit xam nga nit day am problème moroomam yi kontaan mbala mu toog moom it mu ne diw moo ma liggéey ba ma am problème bii société bi yàqu loolu dañ ko war a bàyyi ñu xam ni yàlla mooy def lu ko neex yàlla kese mooy def lu ko neex wa ma min daabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha lépp luy dox ci kaw suuf li nga war a am yàlla bind na ba noppi te ni nga war a mel yàlla bind na ba noppi kon ñu rafetal diggante yi bu ñu rafetal diggante yi rekk mu gën a baax bu loolu wéyee mooy ñu xam ne ñun jullit bu nekk am nga responsabilité ci àq dëkkandoo yi ak dëkkandoo yi ndax am na dëkkandoo boo xam ne am nga moom ñett àq am na koo xamante ni ñaar am na koo xamante ni benn koo xamante ni ñetti ngeen ngeen bokk ñetti ak moo dox sa diggante ak moom mooy ki nga bokkal famille mbaa ngeen bokk ndey ak baay bokk rekk àq la ak koo xamante ni dëkkandoo moo leen di boole ak koo xamante ni diine moo leen boole koo xamante ni amal nga ko ñaar mooy koo xamante ni bokkoo ak moom fami masalan joolaa ak olof bu ñu dajee danga war a xam ni kii diine moo ñu boole ba pare ñu ñëw bokk dëkk kon ñaari ak moo dox sama diggante ak yow bàyyi ma rafetal kenn bu mu jàpp moo gën moroomam koo xamante ni benn moo dox sa diggante ak moom mooy yéeféer bokkoo leen diine waaye lan moo leen di boole mooy dëkkandoo man li ma jaaxal mooy nit ñi léegi dañuy préférer toog ak chrétien yi bañ a toog ak jullit ñi jaaxal na ma lool xam nga ñun suñuy problème yépp bëgguñu kenn am jàmm ci ñun gis nga baatu lislaam baatu salaam bu ñuy nuyoo ab jàmm la fu ñu dem war nañu yóbbaale jàmm diine daa weex tal képp ku ko sol danga ko war a rafetal foo dem rekk njulit pire sa comportement mën naa tax nit ki dugg ci diine saa nga waar ko jullit pire. waa kay technicien yaa ngi ñëw de jullit piir loolu la war a mel waaye léegi toog ak jullit da ngay ragal dem nañ ba nit da ngay toog ñun dañuy yaakaar ne nasaraan yi ak doxul suñuy diggante ak ñoom nekk sa néeg volume musique walla volume sa tele di lor kele nañ bàyyi nañ rafetal suñuy nekkin problème yi nag mooy bu ci tegu mooy jigéen ñi mooy lu yenent bi wax laa taaqiran naa jaaratun li jaaratiha walaw firsi na saataan benn jigéen bu mu jàpp ni moo gën moroomam doonte boo lekkee sa desetu lekk nga koy jox mu koy lekk génnoo ko benn jigéen bu mu jàpp ni moo gën moroomam te ñun suñuy société loolu mooy problème bañ nañ sa ba clan clan xaw ma clan lañ koy waxee lañuy def man duma ànd ak diw ndax duma saaram bokkoo leen zaar te bokku jamono doo zaaram te bokku ngeen mennam bind doo zaaram te bokku ngeen benn melo te bokku ngeen maam aadama yonent bi laa taakiran naa li jaaratiha bu kenn jàpp ni moo gën moroomam xam nga lu alquran bi wax inna kalakinaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa kabaailan li taarafu inna akramakum indallahi atkaakum gënalante fa yàlla la du fii yàlla ne maa créé ab nation def ci ay différence ngir ñi xamante xamante googu nag du càggin ne gënante moo fa nekk bu kenn jàpp ne moo gën moroomam bu loolu weyo luñ ciy yokku pour tëj bunt bi xam naa ne yaa Seydaa ngi ñëw bu ñëwee mu jéem a waxtaan ñun ñu doog a gàmmo donte imaam Assane daa baax te yaatu fuñ daje rek jébbul ma lépp ci mbaaxam la rek wax dëgg fa yàlla lii dañ ko daan ubbi rekk ngir bàyyi boroom programme yi ñëw toog. ñu installé wu pour ñu mën a régler salle bi ñu doog gàmmu luñ ci yokk mooy kóolute nañ ko sàmm kóolute kóolute dañ koy làcc ba yomal qiyaama kon waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. kon programmateur yi xam naa ñi yore programme bi seydaa ñëw na seydaa ñëw na mu ubbi ñun dañuy barkellu ci rek ci seen liggéey ci seen tool lañuy ñuy barkellu rek waaye daa nekk boroom tool ga ñëw na mooy yaa sayda kon xam naa ne ci kanam tuuti dañ koy jox kàddu ñi tërale seeni programme ñun dañuy barkellu rekk ci seeni tool la ñoom ñoom lépp waa kon euh, Bécaye tafaddal mashkura nga dalal soxna Kayre rabbi ya ahmadu ala muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu ala muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahuma fi xayaati وجل وادي وتنلى